wa kuntum ala shafa xufra min annaari fa anqazakum minha wattaqu llaha allazi tasaaluna bihi wal arham summa taquu yawman turjacuuna fihi ila allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun qala taala man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bi zallamin lil abid هذا وصلوات الله وسلامه عليك يا خير خلق الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم أو كما قال وسلموا تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين الحمد لله وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم bokk julliti gannaaw bi ñu sant yàlla tabaraka wa taala ci xiiwal yi ñu jox benn xiiwal dootul gën a màgg mukk mu yónni ci ñun yónnee ci ñun di ñu fàttali jaarele ko ci ngën ji bindeef ci mooy sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam tafal fa ma ballagta wallahu yaasimuka min annaas ne li ma la yónni jox la ko pour nga joxal ma ko mbindeef yooyu ci kaw suuf gannaaw bi ma yónnee Moussa ak Isa fatra min ar-rusul ma yónni la ne jëlal ma waxal ma leen nga jox leen wax leen li ma la wax nga jottali leen soo ko deful nag maa ngi yow kon yow matale woo mu tax sayyidina wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bu waxaan ba noppi ne qad ballaghtu yàlla la ma waxoon joxe naa ko muy responsabilité boo xam ne daf koy teg ci ndoddu yónnente yi te li nga xam ne moom mooy contraire ba ñu sas leen ne waruñ koo def alkazibu wal xiyaana wal kitmaan waaye nag il faut tabliir di am bokk yi sayyiduna wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ci fukki fan wala lu tegu ci weer wii ñuy génn depuis fukki fan ñu ne ci mu mel ni isra wal miraaj yàlla jël na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko ci semaine yi passé ngir lan mu doon li nga xam ne mooy li gën baax lim gën fonk li muy njëkk laaje ci biir bàmmel mooy julli yàlla yóbbu ko yéegee ko min al masjid al haram ila al masjid al aqsa mu yéegee ko ànd ak jibril ak alburaq ñu jëm ca kaw jëm ci malaa'il aala ba dem ci arash fa kaana qaaba qawsayni aw adna fa awxa ila abdihi ma awxa kon maa kadaba alfuaadu ma ra'a donte am na ñu koy werante ci loola yàllaa ngi laaj afa tumaaruunahu ala ma yara wa laqad ra'aahu nazlatan uxra inda sidrati lmuntaha indaha jannatu lmawa ndax da ngeen di weddi la mu gis ndax da ngeen di weddi la fa ne ndax da ngeen di weddi israa bi wala miraaju bi ngeen weddi diggante foofa bépp ak baytul maqdis wala diggante baytul maqdis ba jëm ci yàlla lii nit a koy def lii nit mënu ko def ku dul ko yàlla yéegi mu boole ko jibril al buraax ñu yéeg ci kaw ngir mu fekk fa sayyiduna yu nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yàlla won ko boppam ci loo xam ne mu ngi koy soog a gis ci mbaaxu yàlla ci doole yàlla ndax am na beneen yonent bu ko laajoon yàlla joxu ko ko muy muusa alayhi afdalu salaatu wa taslim mbokk yi la mu jëli woon ak la mu gis ci diggante bi rixla bi xeju fi ci jamono bii daan ci ñëw ca kanam di ko jukki di ko jukki fekk balaa muy jeex waaye dana doy nit ki xam ne su fekkoon ne anniversaire lañuy wax ne bés bu dellu ca la amoon ca la sosu woon mu am benn at mu am ñaari at mu am ñetti at mu am ñeenti at ñëngoog ci hijra bi hijra bi mu ngi ci 1444 moom weer wii ji sahru rajab ci ñaar fukkeel bi ak juróom-ñaar ci la ko yàlla yéege ngir mu indi ñu julli bi mu nekkoon nag lu ëpp juróomi julli mu demoon ba yegg juróom fukk waaye dem na ba léegi juróom la bokk yi ndaxam kenn ku ci nekk li la naqari li nga bëggut buñ la ko tegee danga am jot pour xeex ko duma wax ne Afrique duma wax waaye ñun senegal Sénégal kuñ fi teg loo xam ne attanoo ko wala ñu teg la loo xam ne bëggoo ko wala ñu teg la loo xam ne du yoon wala boog yow sa luwaa wala sa durwaa wala durwaa yi ñëpp moo ko nanguwul ñëpp dégg sa coow waaye itam képp koo xam ne liñ la teg neex na la li nga xewle neex na li nga bëgg mu ñuy am danga ko feetoo ba ñëpp yëg ne yaa ngi feetoo lii mu mel ni dañ laa may soxna dañ laa jox oto dañ laa joxub kër dañ laa jox alal danga nga am liggéey kenn ku ci nekk la la neex ba sa grade ban lay tappal ñëpp daañu yéeg ne lii bànneex la ñu bànneexoo ko ak yow bu dee naqar la ñëpp ànd ak yow naqarlu ko donte dafay jar sax ay lacrymogène di daanu ci kaw nit ñu xool nag mu anniversaire bi nga xam ne mooy julli juróomi yoon du président de la république du ministre du gouverneur du sous-préfet du préfet du monsieur le maire amu ci kenn koo xam ne da nga koy soxla ca saasa nga jot ko mu yomb la amut xanaa dama ne président bi nga xam ne askan wi ko fal nga amoon numéro am doo ko di ko jot keroog ba mu foloo boo moytuwul dootoo ko jot ana ñaata nit ñoo wax ne ministre sang maag moom ñoo daan bokk di naan attaaya ministre sangam ñoo daan bokk di daje ci sama kër xarit ministre sangam gouverneur sangam waaye ba mu yéegee ci pouvoir dof na luy ndof mooy loo xam ne bokkul ak xel la muy xal la muy xel waxuma la nga jot ko ci téléphone waaye ah boo ko soxal woon pour audience te ngeen ji bindeef sayyiduna wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp xam nañ ne moo gën ci ñëpp waaye am na kenn ku ko gën mooy kan jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu kooku moo xewal julli jox ñu ni julli bu ne man jox naa leen ci bés bi li nga xam ne mooy audience cinq fois par jour président mënu ko ministre mënu ko gouverneur mënu ko ba yi jeex sëriñ sàngam mënu ko xalif yi mënuñu ko imaam yi mënuñu ko ndax boo demee ñu daa fatu kan lay futteeku boog wala kañ lay fittandu ko ba nit ñi gis ko daa fatu rek ngay dégg imaam daa fatu sëriñ bi daa fatu cheikh bi daa jàppu monsieur le ministre amatul jot président amul jot gouverneur daa nekkoon ci réunion yii ngay dégg te pourtant loolu ñu ko fal pour askan wi la la pour mu jëriñ nit ñi la kon buñ dematee ba mënatu ñoo jot ca moom musiba naaru la lenn xam nañ ko moo dina yow bi ko soxla nga sori ko lool mu am ñoo xam ne dañ koo jege lool mu nekk ca ñooña te egseegul ca yow kon boobu yaa yàkkamti kon boobu du moom am na wu lay waaye lay bi mooy kenn du ko jot kenn du ko gis ci biir fukki nit yoo jot juróom-ñetti yépp daal di ne mënatuñ koo jot musiba naaru lay nga yëg ko nga ko yëg waaye nga xool ci nga xam ni jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu ne inna salaata kaanat ala almuminina kitaaban mawquuta juróom yoon ci bés bi man yàlla danaa la jox rendez-vous danaa la jox audience nga ñëw nga defal ma lii matul sax juróom-ñaari minute ca ba nga tàmbalee ci balaa ngay pare allahu akbar allahu akbar asalaamu aleykum ma di la gis te yow gisoo ma nga dem sama biir néeg nga ñëw sama palais comme da ngay demee ca palais bi nga xam ne mooy président nga ñëw sama bos mooy lan jumaa wala jàkka bi nga xam ne man yàlla foofu laa leen woow ngeen ñëw ci mbooloo ngir lan ma jégal la ma faj sa aajo ma yokk la ma yokkal la ma defar la ma defaral la ma yërëm la ma gërëm la fii ci àdduna ak fële ci àllaaxira ndaxamte am na koo xam ne ba muy dem ci jumaa ja daa ay bàkkaar njaaloo na sàcc na fen na wor na tappale na jël na alalu jàmbuur yàq na yàqal na tas na yaakaar tas na kër amalul kenn jëriñ te mu ngi dund di jëriñoo ci nit ñi mu jógee ca biti dem ci jumaa ja malaayka yi gis ko ba ñu jàkkaarloo ak moom daa dina yàlla daf gis na ko ku salte ngi nii ku bon a ngi nii ku ñaaw a ngi nii ba li nga bon yëpp njaalookat baa ngi nii yàlla ndax gis nga ko mu ne bàyyi leen ko yàlla ne malaayka yi bàyyi leen ko mu ñëw nga ñëw bay dugg ci jumaa ji mu ne yàlla yaa ngi koy gis mu ngi dugg sa biir nekk mu ne bàyyi leen ko mu dem bay dugg yëkkati tànk ba duggal yàlla ne simmil leen ma li nga xam ne mooy ay bàkkaaram ngeen tegal ma ko foofu bakkaaru njëbadi bakkaaru tappale bakkaaru njaaloo bakkaaru sàcc bakkaaru wor bakkaaru tab yëpp bakkaar yëpp nga summeel leen ma ko ngeen tegal ma foofu ndax sama nekk dafa sell ma mukk ku fa dugg di saq di di di yàq mu tax ndigal la yàlla ne wa tahir bayti li taifina wal aakifina wal qaimina wa rukkai sujud mu te boo demee ci jumaa nga fekk mu salte wala nga fekk setul wala nga fekk mu bari ay lënd responsable taxawal nga wax ñu wala yow nga defar yàlla joxe ndigal tahir bayti laabal leen sama néeg bi tahir bayti laabal leen sama jumaa ji tahir bayti laabal leen ko bale leen ko ba mu set minance leen ko bu leen fi gis benn taq-taq tilim ndax palais de la république wala palais bu présidence wala présidence ba doo fa gis lenn lu tilim kon bésu yàlla bi nag sa néegu sëriñ dañ koy bale yow donte góor nga yaa koy bale sa néegu jëkkër yaa koy bale yow sa néegu patron wala sa kii patron loo fa for sax nga yóbbu ko sànni ko ca biti yàlla ne simmil leen ma bakkaar yi ngeen bàyyi ko mu dugg nga dugg ci biir mu ne yàlla mu yàlla ne bàyyi leen ko mu dugg nga dugg ne bismillahi wa salaatu wa salaamu ala rasulillah yàlla ne nangul naa ko ko nga ñëw di kabar malaaka ni cop yaa ñàkk fulla wala yaa ñàkk jom di la xas yàlla ne bàyyi leen sama jaam nga julli sa julli ba noppi ba génn ci biti malaayka yi yëpp jóg ne kon kii fi indi woon lii lu takk yu salte yi dañ ko ko yàlla ne déedéet rus naa man yàlla ci waxin wala jomb naa man yàlla ci waxin wala ëpp naa ku ñëw ba ci man te yóbbaale woo dara jéggal naa ko ko jël leen lépp ngeen seeyal ko allahu akbar allahu akbar allahu akbar sa bakkaar yi nga doon tooñ ci semaine bi ci weer bi ci at bi la nga doon def ci yóbbaat yëpp yàlla jéggal na la ko ngir lan yàlla ne dangaa bàyyi sa néeg jëm sama néeg dangaa bàyyi sa kër ñëw sama kër sa bakkaar yi nga doon def dem nga bëj mu rus nga nga siggi pour nit yëg ko sax yàlla suturaal la kenn yëgu ko nga ñëw dugg ci néegam moom ele mu dóor la mu ne baal naa la fasfahi safha aljamil inna rabbaka huwa alxalaaqu alalim wa laqad aataynaka sab'an min almathani walquran alazim laa tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwaja minhum zahrata alxayati dunya bokk yi lii mooy julli julli boobu yàlla jox ko sayyiduna wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngir ñun pour ñun mu jëriñ ñu waaye pour mu jëriñ mu jëriñ yàlla du pour mu jëriñ yàlla adduna bi yépp bu ñu bàyyi woon julli ne dañuy grève julli wala dañuy grève yàlla ndax yàlla li ñu soxla ci ay aajo defal ko yàlla ne wàññiwu leen ci man dara yàlla wàññiwu leen ci sama nguur dara bu ñëpp doon ànd di julli ba kenn defatul bàkkaar ñëpp di jaamu yàlla yàlla ne seen jaam bu yokkuma dara yokku sama nguur dara kon kay rufi atal wa jafati suxuf mbokk yi kon ñun dañoo dëkk ci réew moo xam ne dañoo bëgg jàmm bëgg jàmm boo xam ne ñu ngi koy wëri di ko wut fu ne première numéro un fa ñuy amee jàmm mooy nañ toog waxtaan muy ci parti politique yi ak état muy ci sëriñ si ak état muy ci imam yi ak état muy ci xalif généraux yi ak état kan mooy état ak lan mooy état mais ñii ñooy état et puis ñu jóge fii personne yii ñooy jóge fii dem nekk état et puis personne yi nga xam ñoo la ñu tuwooyee état wala gouvernement ñooñu ñëwaat fii <laughs> et puis léegi nga jeexal ñu dàq la mbaa nga dàq sa bopp mbaa yàlla wàccee la ndax lan qul allahumma malika al mulki tu'ti al mulka man tashaa'u wa tanzi'u al mulka man tashaa'u wa tu'izzu man tashaa'u wa man tashaa'u bu buñ la wàccee wala nga wàcc wala nga wàcculu wala ñu wàcce la wala yàlla dàq la ci fonction bi nga ñëwaat fii kon kan mooy état ñun ñooy état kon bu ñu bëggee xam ñun suñu état nu mu mel nu mu mel nañu xool suñu bopp nu ñu mel suñu xamee ñun naka la ñu mel suñu état noonu lay mel suñu xamee état bi nu mu mel loola mooy ñun nii la mel kon bu ñu kenn sonal ci lan lii mooy lan wala fii mooy fan déedéet bu sonal bu sonal kenn yow daal xamal ne daal laa yu inna allaha laa yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim kon yéen la kon Sénégal amul Afrique amul wax la addina amul dara amul dara nekku fi lan moo fi nekk nit moo fi nekk su baaxee nita su bonee nita kon kay yow nit lañ war a wax yow nit rek lépp daal di jaar ci bëri waaye li ma koy faral di nettali fii suñu sëriñu naar bu baax wala arab bu baax di cheikh mutawalli Shaarawi bañ ko laajee moom Shaarawi ñu ne ko bu ñu bëggee tabax dawla islamiya naka lañuy def mu ne amul ay waxtaan ki dugg a génne xam nga nu ngeen di def ñu ne ah da ngeen di fekk be fexe ba kenn ku ci ne sa kër na nekk dawla islamiya sa néeg nekk dawla islamiya maanaam sa bi atte wala attel islam sa kër gi noonu bundu kër gi noonu. mbedd mi noonu keneen keneen keneen noonu mu ne bu yàggee ñëpp nekk islaam loolu mooy na rafet jikko yi jikko yi bu baaxee rek lépp bu baax mbokk yi ci benn point bu ñuy mujjee wax ci lii moo di la ñu ñëpp ñoo bokk Sénégal kon jot na kenn ku ci nekk xam ne Sénégal gii danga ci am part de responsabilité defar bi nag danga koy mane ci jëfin wala ci wax wala ci loxo wala boog nga naqarlu ko la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ba ci des nag mooy kenn ku ci nekk foo toll nga taxoo istighfar salaatu ala nabi na nga def istighfar yu bari di ñaan sa borom waaye di ñaanal sa réew waaye salaatu ala nabi nga bëril ko di ñaanal sa bopp di ñaanal sa réew ndax sa borom moo ne ñaan leen ma dikk leen ci man lu ngeen tiitee bu ngeen tiitee bu ngeen soxlaa ñëw leen man danaa leen jëggal te nag leer na mun ne ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daamata daai ida daan falyastajibu lii wal yuminu bi laallahum yarshudun kon nañ ko gëm rek ñaan ko buñ ko ñaanee mu fajal ne suñuy aay ñu ngi toll ci weer boo xam ne buñ doon wax ne kazu rajab bokk israa bi jeex na weeram jeex na ñu ngi dugg Shaaban bi nga xam ne xadis bu ñu mujjee tudd léegi moom mu indi atte diggante weer wii passé ak weer bañ jëm mu weeru koor mu mel ni kon weeru koor li ci deseti manqué na fan weeri fan ngir ni jiital dara wax dara ni weer wii ba mu teral kenn ku ci nekk su fekkee ne konte nga muy juróom ñaar juróom ñaar fukki fan ak juróom-ñeent li ko dalee juróom-ñetteel ba nañu commencé di seeni weer bi bu amee ñaar fukk ak juróom-ñeent buñ ko gisee nañu woor buñ ko gisul nañu mottil moo tax soomu li ru'yatihi maanaam weeru koor bu jotee ñu ne weeru koor bi jot na mu ne woor leen ko kañ ngeen koy woor mu ne aftiru li ru'yatihi mu ne bu ngeen gisee itam weer wi mu feeñ wari leen kañ ngay wari in humma aleykum bi moo lay moo lay wan yoon bi in humma aleykum fa akmilu iddat chaabana thalathina yawma mooy lan mooy weer wi nga xam ne moom mooy weeru chaabaan bu amee fan weeri fan kon weer boobu jeex na buñ ko gisee ci ñaar fukk ak juróom-ñeent weer bu jeex na kon ñun ñoo juumoon bañ koy compter ci première ba waaye weer moom fan weeri fan lay am kon inna iddata shuhuri a allahi isna ashara shahran waaye xadis bi moom mooy fii lan la yàlla wax ci weer ñaata fan la kon weer fan weeri fan la du ñaar fukk ak ñett ni ko tubaab bi indee ci miladiya waaye tam du 31 jours waaye 30 jours la kon buñ ko defee ñu ñëpp jullit ñi ñu àndatoo ci xam ne weer wii bu amee 30 jours jeex na kon luñ fa fekkati rek ci premier jour boobu mooy weeru koor fa akmilu iddatu shaabaana thalaasina yawman suñu wooree itam dem ba ca be ñu am ñaar fukk ak juróom-ñeent ñu gis weer wi kon dañuy wari ñu xam ne kon weer wi fan weeri fan la am waaye ñun ñoo juumoon ci compte ba science nag ñëw di la won ne ana weer wi axakañ yàlla maye na may na waa science ñu gis loo xam ne bët gisu ko du ñu bàyyi sharia bi wala sunna bi tëggal sukkandiku ci science kese waaye du ñu bàyyi science itam topp sunna dañuy boole ñaari yëpp lan moo tax wa saxara lakum as-shamsa wal qamara daa'ibayn wa saxara lakum al-layla wan nahaar kon wa saxara lakum al-layla wan nahaar wa aataakum min kulli ma sa'altumu kon yii moo ñuy won ne kon ñun ñi lépp lu war a mën ñu xam guddi gi ak bëccëg bi ak li ta'lamu adada sinina wal xisaab loolu moo ñuy won ne kon ñi nga xam ne wàllu science ñooñu yàlla moo ñu leen tàggatal kon bul wax ne déedéet waa ñu science waxuñu waa lii déedéet yépp yàlla yàlla moom lépp ki xamul nag wala xam-xam yaatu wala tukkiwul wala njàngam xóotul may wax ne déedéet yonente bi lii la wax yonente bi sallallahu lépp la wax amul lenn lu mu bàyyi alquran lépp la indi maa faratna fil kitaabi min shay lépp ci biir yow yaa ko xamul yow yaa ko jàngaluñ la ko waaye lépp a ci biir kon boo gisee ku la ëppale nga ànd ak moom ca loola kon weer wi pour ñu seenu ko il faut ñu boole science bi ak sunna bi bu ñu ko boolee lu mu ñu may rek ñu jël loola te bañ koo def weeru tarixa walla ñu war def war bañ koo def weeru gox weeru tarixa mooy lan mooy waa tarixa sàngam foog ne déedéet ñoom ñii lu ñu wax rek foofu la déedéet foofu dafa am iskaliyaat yi ci ne mooy ak ñoñ ci biir réew suñu demee ba gis ne am na ñuy fooyee benn mbir ci wàllu diine wala boog joxuñ ko cëram joxuñ ko àqam am na ñoo xam ne am nañu droit taxaw ne lii nag dañ koy jox àqam ba mat sëkk ñooñee buñ ko defee nag ba am ca résultat gis ku jógee fale ne déedéet weer bi moomu leen ko te fekk na ñoom waxuñu ñoo moom weer bi dañoo fekk nit ñi politique bi mu saf leen ñu dugg ci parti nangam saf leen ñu dugg lii saf lañ ñu duguti kii nag ñu gis ne wàllu diine ji ci wàllu weer wi amul yittalu mu ñu yittewoo ko ba am ko waa ji ñooñu ñu ñëwee nag ne man lii laa gis mais àndal ak ñoom ca la ndax yow mosoo yittewoo kañ la weer bi suux kañ la weer bi ñëw kañ la jant yox sa new ci daal da ngay dinaa rek ñetti yoon pare bés pare nga ci guddi gi bu jotee yaa xam ban heure la ban heure yaa xam kii nag daf koy yitteel weer bi kañ la feeñ ak kañ la feeñut kon ñooñu jar jox njukkal kon yenn yàlla jéggal ñu yenn yàlla faj suñu aajo yenn yàlla yokk sutura bi te yokk xéewali Sénégal yal ko yàlla neexal yàlla wàccee fi juboo ak déggoo yàlla wàccee fi bëggante yàlla defal ñu xéewal ak naataange ci suñuy kër ci suñuy biir kër waaye itam ci suñuy biir sëy yàlla defal ñu jàmm ci suñu réew guerre bay xew ca Ukraine yan na yàlla ko boppam ndax guerre boo xamante ne def na concerne ñun ñëpp yan yàlla fay guerre yi ci àdduna bi yëpp turki yàlla fa xew ña jiitu yal na yàlla yërëm leen yàlla gërëm yàlla xaar aljanna ñu ca des itam yal na yàlla dimbali leen jox leen may leen wërsëkal leen si ay dëkkuwaay ñun ñu fi nekk Sénégal itam yal na suñu nawet di neex yal na subhaanahu wa taala defal ñu jàmm ak juboo rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi alaxirati xasanatan wa qina adaba annar wa adxilna aljannata maa al abrar ya azizu ya gafaru ya rabbal alamin allahumma rabbi habib ilayna al iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من القانتين واجعلنا من الحافظين توابين التائبين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اغفر لنا وعافنا واعف عنا ولا تعاملنا بالابتلاء سلام قولا من رب الرحيم سلام على موسى وهارون سلام على آل ياسين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العلام الغيوب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان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 Thank you.